bu yaakaar sénégalais bi fi toog si kii naan nañuy këyee ak dara amu fi lu ñuy fay dara amu fi lu ñuy fay dara amu fi lu ñuy mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ni yéenay saxoo di seetaan chaîne bi di MC TV tey nag dafa am benn vidéo bu leen bëgg a indil muy lu soxal le cas bu Bouba Ndour ginnaaw kàddu yi nga xam ne danañ ko fi yëkkati fan yi nii euh, que ni Macky Sall dafa am bor boo xam ne daf ko baaloon ñi nga xam ne ñoo di patron de presse yi loole nag état bu bees bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nguur gi dañu daal loolee dañ koy fay Euh, ba tax na Bouba Ndour nag loole daal di koy ñulub ba tax mu àddu ci mbir moom di xam le ne daal fii bor buñ fii fay nekku fi loolee nag buñ ko waxee moom lu soxal presse bi nga xam ne foofu la nekk la muy kër gii di groupe Futurs Médias muy TFM ak RFM ak mboolem Futurs Médias bi nga xam ne daal moom Bouba Ndour fa la nekk ca magam jii di Youssou Ndour moom ko mu soxal wax jooju mu wax que daal fii luñ fii fay nekk fi moom li mu bëgg wax mooy amee luñ benn mbor état du Sénégal boo xam ni même bu naan lémpoy nañ ko fay ñoom ameewuñ benn mbor boo xam ne dañ koy fay loolee nag mooy kàddu yi nga xam ne moom la Bouba Ndour yëkkati am nag benn vidéo bu leen bëgg tegal ngeen déglu ko seetaan ko muy kàddu yi nga xam ne yoro yëkkati na ko ci waaye balay loolu dañ lay ñaan yow mi nga xam ne yaay seetaan vidéo bu fekkee abonné ko nga abonné activé cloche de notification bi ndax vidéo bu dugal ngeen mën koo gaaw jot jaa ngeen jëf ku fi yaakaar sénégalais bu fi toog si kii naan nañuy kii ak dara amu fi lu ñuy fay. ziar gars jàkkaarloo bii passé Bouba Ndour def na cri de cœur boobu ba léegi defuma ci vidéo ndax dafa am benn audio bu ma doon waxtaanal sama meilleur ami ñaa mais malheureusement gisuma audio yi parce que suñu discussion yi dafa bari ay mois ci ginnaaw sama xarit boobu dama ne ko woon booy financièrement mi TFM am na problème. mu ne ma noo ko xamee dafa am ku la ko wax ma ne ko non kenn waxuma ko dama xool situation yi frustration yeeg frigo yeeg yooyu mu ne ma noo booy kon bu ci def vidéo da leen di yàqal te dara wóor ci quoi. moo tax bi ma gisee Bouba Ndour génn wax ma ne ah may wari audio boobu pour tegal leen que confirmer leen ni la lii doon naa ko wax sama xarit bi mais gisuma audio bi Bouba nag cri de cœur bi mu def ak li mu wax am na fu ma d'accord ak moom dinaa ci ñëw am na loo xam ni wax na ko mais dafa def aveu de taille oui boo liiree li mu wax dafa avoué ni ñoom daanuñu fay impôt néew ma loolu moo am mais ci ay waxam ndax cri de bii mu def nii defu ko woon ci jamonoy Macky Sall maanaam fisc bi ñëw na nii instant bi xam nañ ni dañ ko war a fay nee na sax même buñ ko fayee. télévision bi dafa am problème laaxaal na si sax yeneen médias yi neen ñëpp am problème pour sax fay seeni salaire bon fi ma àndeek moom nag surtout sax fi mu naan su ma xëysee ba gis cent personnes ma ne ah yàlla na bu yaakaar tas gis nga état bu fekkee benn société wala benn entreprise dafa nar a dem fayit wala dafa war a suux état da am devoir pour dimmali ko pour mu bañ a yegg foofu état sax dina subventionné bon bu dee pays développé yi fii bon bu fekkee benn entreprise société dafa nar a daanu dañuy def le tout pour redresser ko gis nga TFM ndeysaan dafa nekkoon rêve pour nga dugg fa maanaam journaliste yi animateurs yi nga gis sax ñuy joué ci euh, série yi téléfilm yi en général pour ne ñi nga xam ne ñooy célébrité sax dañ doon def lu tout mu nekkoon seen rêve pour ñu dugg TFM ba ñoom sax ña fa employé dañ ko doon glorifié da nga doon gis ñenn ñi di ko wax di gis Lamine Samba naan man sama contrat xaw ma VDN bi xaw ma ci mbedd laa ko signé Oustaz Modou Fall naan ñun fi nu nekk ñëpp fi nu bëgg ñëw. nga gis sax jamonoy mercato bi vraiment Youssou Ndour ni mu doon débauché gars yi xam nga ba nit ñi sax am na ñoo xam ne dañoo dugg TFM dañoo war fa nekkoon ndax Walfadjri ñaata nit la defal ay formation mais léegi nga gis ni liggéey TFM nekkatul rêve léegi nga gis frustration yi bari na ñu ñuy frigo bari na parce que ni ñu doon recruter en masse parce que sama benn rakk boo xam ni moom ay mbirum réseaux sociaux ay mbirum àddina intéressé ko benn jour du la waxtaan mu ne mais yoro télévision nan lay def ba fay ay employé man loolu laa xam te léegi gis nga Bouba Ndour wax na nee na sax pour ñu am publicité léegi problème la te ñoom ñoo ci tane la wax ay publicité ay deux cent mille ay cent cinquante mille te gis nga crise bii am ci média bi te li ko waral mooy réseaux sociaux yi télé bu gën a mag lay gën a sonal maanaam TFM parce que ay Walfadjri ay Sen TV tàmm nañ genre situation yi quoi. te yàlla tere ñaanu na ko yàlla ni TFM nekkee ci crise seen emploi yooyu nga xamante ni ñoo waroon fan leen formé amoon rêve dugg TFM ak frustration bi ak frigo bi ak nu mu demee nii non du ñu am colère de ñu si bari du ñu am colère fu ñuy ci yoon lay doon justice ñaanu ko yàlla nag ñuy ñaan nag TFM wax dëgg yàlla. yàlla na taxawaat ci ay tànkam te ñu ñaan nag état jàpp ci parce que ay père de famille ñoo fa ne ay mère de famille ay nit ñu yor seen njaboot. wax dëgg yàlla tamit di ko ñaanal bépp média yàlla na yàlla redressé situation bi.